lii ab njukkal la Pape Bouba Diop kenn ci doomi Sénégal yi si sigi réewam 1978 2020 demee nga daw ñeent fukki at ak ñaar lii doy na waar Bouba bàkkal nañ la sa bàkk réew nga teen wane ni jàmbaar dëgg nga gaynde buur àll kenn du ko yab kenn du ko yàpp te saa yu rëbbee indaale ndam indaale yàpp 31 mai 2002 du la masa fàtte fàtte siggil sa nation si siggil sa continent sa benn booba buuba France du ko fàtte Sénégal dootu la fàtte abadan outsider lañ doon ñu woowee nga wane ne tee le jàmbaar waar dëgg nga Henri Camara seede na El Hadji Diouf Habib Beye ak génération ba ci génération 2019 bi buuba yaru woon nga teyoon nga joxoon nga ñëpp cër moo tax askanu Sénégal delloo la njukkal dimanche bi xibaar ba jollee ñëpp sëngeem rongoñ daanu Sénégal jàpp France Angleterre ba Grèce ñëpp lay jooy sa empreinte marqué nga ko ci football international woyu dootul dañ 2020 duñ la masa fàtte yàlla na yërmande suñu borom wàcc sa kaw xaare la aljana bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaam gaynde tëddal nelawal yàndooral ajj buuba